lu leer nañ nañ nañ nañ nañ nañ ci kaw taabul bi ba léegi gaay naan lii munta am munta nekka te yow nga gis yaay di rey doomam baay di rey doomam farak jànq di reyante yéen ñu bari taxaw maa ngi gis tey réseau ñaan kii warul munta def lii kan mooy Nabou Leye wax leen ko te dee Nabou ak groupam bii mooy gan grubam bii ñoom ñoo def lii dafa leer nañ ni mbiri gis nga dig dig duñ la mun a wax ni nabu lii moo def li ñoom loolu du seen liggéey waaye investigation bi seet na wicc dañ koy jëbal procureur maa leen ko wax suñ ko fekkee ëllëg incha allahu rabbi suñ ñëwee si live bi leneen la ñuy wax lu dul lii leneen la wax lu dul lii lii dafa leer nañ ñii ne leen jël teg leen si yoon lii dafa ñaaw nabu lii lum def dafa ñaaw ki amut mbugeel bum ko bugut Aziz dafa bugg a kii gis ngeen si vidéo yi xol bu set la ko amal di ko taga di ko wax lu nekk si télé yi ah lu mu am éene ko ko mu def nii sa baaxul xam nga lii lu muy mun a def lii day tax sénégalais bu jigéen pour mu am jëkkër sax dafay jafe parce que kenn du la yi parce que kii dafa yaax sa turu sénégalais kenn du la ñemeeti parce que xoolal rek yow Aziz soo gisee ni mel ak nabu si réseaux yi di wax si moom du rafet kii mun koo tegal jàmfaa bu lifin bii bu ñor bii kii dañ ko war a jël teg ko si yoon sénégalais yëpp gis ko ñu xam ne ba mu defee lii de lii moo leen ci fekk waaye ñuy rafetal naan déedéet dañuy xaar kii wax kii wax du ko def yi amul lu ñuy wax moo ko def dafa leer nañ moo ko def gis nga jamono bi jamono bi nga rey nit Richard yombatul su suma si dëkk bu mel ni Sénégal ñii dañu am ay matériel nouveau modèle yi lay am dañ la traque tey Kaliphone su neexoon ëllëg ñu wax ko kañ nga doon waxal ba ban time da sa téléphone bi kan nga message boo eewoo kan nga njëkk a waxal fii ba semaine sax suñ buggee mu neen ko semaine bi yaa na doon wax ak Kele France waxtu bi ngeen wax dégg nga lii dafa leer nañ te maa leen ko wax ëllëg na leen tegal mu gën a leer nañ nabul lii ko koo xam ni boo nga moom lu jinjaag moom la lu jinjaag moom la def na nag lu ñaaw si ustuwaari Sénégal lu ñaaw la def parce que bu nekkoon kii sax dafa nekk di ko koñe wala di ko xeex waaye boo leen xamee nit ak nit nga gis seen vidéo rek nga xam ni kii lu ko nabu li wax rek moom la daan def bugga ko la ko defoon loolu mooy. Euh, maa ngi ziar ñëpp Kali moo frère maa ngi lay ziar di bëgg bu baax nag euh, ci yéegal bi ma yégal Zeyna Bamba sama consœur sama sœur maa ngi lay ziar ak ñëpp ñu ma fekk ci panel bi euh, man nag euh, wax dëgg neex yàlla yu ci bëri wax nañ ko te baax na ñuy répété li nga xamante ni jot nañ ko wax waaye dama seetlu ñi def demande ci yow dafa bari trop. de ce fait dañuy dañuy dem ci li nga xamante ni yaakaar naa bëgg naa ci wax. parce que tey benn Zeyna Bamba bu joxee benn information. di nga xam ne carrément c'est avéré benn Ngoné Saliou bu joxee information di nga xam ne carrément c'est avéré ak ñeneen ñi nga xamante ni suñu genre gi nga xamante ni dañuy am link dikk dañuy am link section de recherche da ngay xam ne lii ñuy wax c'est avéré man nag damay wax juste rek ci quelque point lay wax benn point bi mooy Sénégal depuis action bi am kan moo amul traumatisme ci ñun ñi seetaan kan la affaire bi am boobu ba léegi te amul traumatisme en fait damay seetaan damay gis ne kenn nelawatul du suba si du ngoon du guddi genre nit yi dañuy seetaan live guddi bu ñu nelaw dañuy ndékk bu ñu ndékkee ñu continuer taal live bi maanaam bu kali di live fi fi xaar fi fi xaar kali tëjee sa micro parce que li ngay wax ñu ngi koy léegi après dafay suufeel fi s'il te plaît. ok donc mën naa reprendre dama ne kan moo amul traumatisme dépp affaire bu commencé dépp ñu yëg ni Aziz Dabala ak Wally rey nañ leen Sénégal ñëpp ci traumatisme lañ ne maanaam nit yi ñemeetuñu sax seen kër yi genre waxuma benn nit bu dëkk rek de mais dangay nekk mbooloo ci kër sax ñemeetoo sa kër. am na ci ñoo xamante ni wallahi chaque vingt minutes ñoo ngi xool seen buntu kër ndax tëj nañ ko bu baax affaire traumatisme boobu noonu mu def man mooy li may wax je vais pas dugg ci fee yi carrément je vais juste entrer ci quelque points parce que man damay dugg ci société bi là damay toog nekk société en fait partie civile lay toogee nii. parce que partie beneen bi ñëpp dugg nañ ci essai affaire li am la ñu wax loolu c'est vrai mais partie civile lay toogal maanaam ñi nekk ci commentaire bi seen intérêt dafa nekk ci live bi xam nga ne pourquoi parce que dañoo am traumatisme total maanaam am na ci ñoo xamante ni wallahi seen live changé na depuis affaire bi am. xam nga affaire bi nan la changé ma dama di dama dama toog ne un plus un égal deux c'est logique donc am na loo xamante ni c'est logique depuis affaire bi am ñu bëri seen emploi du temps yàqu na ku daan wàcc vingt léegi day bëgg wàcc dix-sept heures parce que lan traumatisé wu na nee na su ma wàccee vingt heures dinañ ma topp dinañ ma rey nee na et cetera et cetera est que su ma demee du fekk suñu waa kër kenn dee en fait ñëpp ragal finalement ñëpp a ngi daw sa moroom en fait comme si da ngay dox sax da ngay ngay gestu tout le temps je suis en train de regarder kan moo nekk sama ginnaaw xam naa ko xaw ma ko est ce que su ma ko xamee mën na ma def dara xaw ko est ce que lan la ma mën a def est ce que xam nga sama buntu kër genre y' a tant en fait y' a de questionnement yoo xamante ni Kali c' est incroyable lu may wax parce que lu may wax nii nit daf ko dundu man mii di wax sax mën naa ma dund ko ak keneen ak keneen ak keneen noonu la ñu nekk du dund. beneen bu ci topp mooy quand on avait besoin de changement ñu ne ok diw na fi jóge na diw toog ci gouvernement bi dañ doon def le maximum ci live yi euh, buñ koy def ñooñu dañ ñoo dégg lu ñu daan réclamer tout le temps ci loolu lañ ñu daan fekk si alors population bi instant bi dafa am lu ñu bëgg mooy li ma wax rek sama début wax partie civile laa toogal instant bii nii population bi dafa am lu ñu bëgg mooy lan dañoo bëgg peine de mort lu tax bu ñu bëggee changement ne na fi diw jóge diw toog dañoo rey suñu bopp ba loolu am et puis ñun ñoo xeexal suñu bopp bi loolu ama ah. donc est-ce que jotu ñu tamit ñu continuer xeex parce que j'ai vu que xeex bi commencé waat nañ ci wet Sénégalais dafa bëgg prix dip en fait prix dip def nañ ko léegi ok am na ñu bëri laay fatuñu ñi gëm affaire bi comme genre Kali Kali et je te félicite honnêtement dama lay féliciter bu baax a baax a baax parce que tu es en train de faire un très bon travail même si rendre tu compte donc dama ne sénégalais yi tout le temps lu ñu bëgg population bi bu ci ëppee doole loolu day am est-ce que peine de bi aussi jotul ñu teg ko ñi toog ci nguur bi xam ne ñun dañ leen xeexal bañ toog c'est pas de la politique mais ñu xam ne ñun population bi dañoo tiit c'est ça la vérité dañoo tiit réellement sénégalais yi dañoo tiit ñu nekk extérieur seen famille tout le temps ñoo ngi woote seen liggéey yàqu na donc est-ce que jotul ñu xool yan stratégie la ñuy toog mois je me disais que ne à ce moment la le procureur wala le ministre de la justice wala le ministre de l'intérieur wanoon wane ne ok loolu lu ñuy wax dëgg la sénégalais yi ñoo ñu lor population yi moo ñu ñor dañuy génn def conférence de presse ne tak ba ci sax Diomaye le président Diomaye pourquoi pas là là là cas bi c'est du sérieux le président Diomaye sax war na génn ok lii am na lii c'est c'est grave c'est excessif lii rëy na li yoon dina ci def liggéeyam e, écoute benn benn Californie gu tiitoon wax jooju la président wax dina ko am lu mu ko def dina am assurance parce que instant bi Sénégal yëpp manqué nañ assurance deuxièmement euh, sànq dama dégg nga ne dañuy dañu dañu bëgg kepp en fait depuis commentaire yi maa ngi koy gis euh, Mbaye wax na ko keneen ak keneen moo ngi koy wax c'est important mais lu ñu ñàkk moo ëpp moo gën a rey ket bi là am na nu ñu leen koy waxee sax seen seen orgueil wala seen dignité mën na leen mën na leen mën na leen pousser à que sax du ñu bëgg ket bi moi je me dis que ni kuy jël initiaire bu ñuy defee ket ba ñooñu ñu am sax loo xamante ni waaw mën na leen survivre quelque temps beneen bu ci topp tout le temps bu problème amee du am finalité genre genre. waa ah, ba Fifi waa Fifi mais moom une ma tontu foofu tuuti. Mhm. frère Aziz bi nee na tëjee micro bi tuuti ba mhm. ko ko frère Aziz bi. moom ba ma ko waxee waxi ket sax dafa ne ñoom actuellement affaire ket du loolu la ñuy wax nee na ñoom seen waa kër bi lay ñi ñoo gore frère Aziz bi mu ne ñoom seen waa kër vocal la ko def nii mu ne ma seen waa kër dañuy julli di ñaanal Aziz ba pare di ñaan naan Nabou Leye yàlla bu mu bokk ci lii ñoom seen waa kër nee nañ dañuy ñaan naan nabu Leye parce que ñu ngi seetaan laay bi nee na ma ñoom dañuy ñaan naan Nabou Leye yàlla bu mu bokk ci lii yàlla na dem ñu interroger ko mu set mu ñibbi parce que ñoom nee nañ dëj bi metti na leen de waaye bés bu Nabou lay bokkee ci lii ci la leen di gën a metti parce que Nabou Leye Aziz gëmewu ko woon lii la ma frère bi wax mu ne ma nabu lay Aziz gëmewu ko woon fi lay tolloon ci Aziz bés bu nabu lay bokkee ci lii kon ñun ci la ñuy dëj bi soog a metti metti nañu nag ba mënuñu wax waaye bés bu nabu lay bokkee ci lii ci la ñuy gën a metti moo tax ñun toujours ñun suñu waa kër ñu ngi toog di ñaan naan nabu Naboulaye yal nañ ko interroger bàyyi ko mu ñibbi mu ne moom xaritami sax loolu la ñuy ñaan parce que nabu lay bokk ci lii te wax nañu dëgg yëf dafay choqué kan moo rey Aziz Naboulaye loolu du ndaw nañ waxante dëgg amee c'est la déception waaw kon ah man dañ ma ko vocal waaye moom buggul sax ñuy teg ay vocalam waaye nee na suba daal moom dina dugg ci live xëy na sa live lay dugg wala man man nag gaw ma ne suba dinaa mën a taal parce que li fi fi wax rek emploi du temps yëpp changé na man dematuma dikkatuma Dubaay gi enjoy yi ma daan enjoy ka génn taluma ko. suba moom laa bëgg a takk sama fit wi sax dem jënd ji wurus parce que fi mu ne damaa war a ñibbi gannaaw suba waaye lii tax na kenn toogatul kenn taxawatul ñëpp a ngi toog ci réseau yi di wax di wax di wax parce que lii dafa metti lii dafa metti ba pare dafa ànd ak déception en siècle ni ko Kali waxee Nabou Leye lii bu ko defee gàdd na gàddu àq de te bés bu ko defee bu dee gor la moom Nabou Leye dafa war a rey boppam na bu waratul toog di dund ñu koy jox ay jagaa di ko jox ay ay mburu faga dagaa ki muy lekk ka nangama nag na bu dafa war a éliminer boppam dee benn yoon ci addina dem yombal xiam na bu dafa war a xaru comme ni ko américains yi di defee fa war boppam. d'accord d'accord. Sali pour ma rek après ma bàyyi comme lu ma rek demande yi dafa bari il faut ñu synthétiser tuuti euh, dama ne euh, action bi dafa am lu ma ci jàng. comme nu ma commencé au début mooy civil bi laa fi toogal laa laa laa je dans leur peau euh, dama dégg ci enquête yi ñu ne gars yi craqué nañu téléphone ba xam ne da doon wax WhatsApp ma def ci benn jàngat mooy amul kenn koo xamante ni musul wax des fois appel normal dem ba ci biir na ko ah lii may wax wóorul nañ dem WhatsApp amul ko ko deful fii wala ñu ko dul bu amee ñu ko def bu amul ñu ko def bariwul des fois nga dugg ci sujet bu dangereux wala nga dugg ci sujet bu sensible nga ne un gars yi dañuy kaa yi ñu dem WhatsApp loolu tout le temps dañ koy dégg ci conversation alors pour man cas bu ne am na lu muy jàngal doomu aadama cas bu ne am na lu bees loo xamante ni war nga ci yeewu donc cas bi yéena ñu bëri ci ñu jóge appel normal kaay ñu viré whatsapp mu nekk loo xam ne lu ñu war a éviter la beneen bu ci topp mooy bu may laajte rek kan la ñu war a wóolu ci àddina parce que Kali bu fekkee sa meilleur ami nga ne nit sama meilleur ami la nit ñoo bokk koñ ñu ne dëkkandoo léegi sax moo moo gën mbokk dañuy tam di wax proverbe boobu parce que bu la dara dalee sa dëkkandoo ngay njëkk a gis bu dee sa dëkkandoo attan na la def yenn yi ba nga jël dëkkandoo teg ko ci place su mu gën mbokk dëkkandoo def la loolu léegi wóolu woo mbokk wóolu woo dëkkandoo Kaliphone kan ngay wóolu alors suba incha allah ñaan nañ yàlla lépp loo xamante ni am na rek parce que procureur moom bu toogee juge juge toog Kaliphone ay nit kese lañ de waaye am na benn leer boo xamante ni suñu borom def na ko ci ñoom loo bañ a bañ a bañ a bañ a avoué boo jàkkaarloog ñoom dinga nga avoué te Aziz Dabala wax dëgg dinaa ko seedeel loolu ci live bi parce que dëddu na waaye sama nit la woon xamoon naa ko récemment bi am doon def clip man maa ko woo mu ñëw man ba ma paree man maa ko fay mu dem yoonam nit ku baax la yal na suñu borom yërëm te jéggal ko te képp képp koo xamante ni tuumaal nga ko rek di nga layoog suñu borom donc je vais pas trop monopoliser la parole mais Kaliphone je suis trop fier de toi frère je suis trop trop trop fier là je dama la koy wax. kontaan naa ci yow waaw waaw kontaan bu yow bu bu baax a baax et là bu ko bàyyi. tali dama lay ñaan même bu ñu xamee dëgg bi ba xam ko rey tali continuer sa mission. incha ci lii nga vise tu as la population société bi ñoo ngi fi pour yow danga am lu riche dangay am journaliste am am am am am juge am et cetera am yow maanaam catégorie de personne bu ne. moo ci sa live donc tu n'es pas n'importe qui continuer nekk fi population bi bu dara amee actualité toppal actualité bi de mais nekkal ba tey ci sa yoon pour ñun donc loolu moom amoon naa pour wax la ko et di wax maa ngi jéggalu bu fekkee wax naa fi loo xamante sa euh, ça dérange merci beaucoup dinañ ko dégg jërëjëf donc Khadija ubbil sa micro mbala mbala Zeyna Bamba am lu mu dolli rek comme ça mu wàccaale benn yoon waaw te damay dem tribunal ba damay fekkee li nga xam ne moom di procès bi euh, li ma bëgg a euh, dolli moom mooy man j'ai fait un appel solennel un message bu ma bu ma bu ma tenir à cœur. mooy euh, ay jamono bi fi politique bi méttee réew mi métti mu amoon ay manifestation amoon yi ni men procureur de la république dafa génn ànd ak le ministre de la justice ak ñëpp ñu yor wàllum justice bi ñu def conférence de presse leeral sénégalais yi cette affaire là ne plus sénégalais xam nga tey waxuma sax biir Sénégal mais tey boo jëlee jaspora bi nga jël euh, euh, euh, sous région bi ñëpp intéressé wu sur cette affaire moo tax pour man pour man le procureur de la république ak le ministre de la justice muy Ousmane Diagne dañu war a génn élucider les sénégalais sur cette affaire. li nga xam ne nag moom mooy demande sociale bi Sénégal yi di def mooy ñu ab ñu am ay sanctions yu plus sévères yu ñu doon def ci une personne boo xam ne dafa faat bakkan nit parce que sànq euh, Mbaye mu ngi koy wax te lu am am solo la gis nga nit bu ñàkkee mbokkam milliard boo ko joxee safu ko mais xam nga lan moo koy gën a metti les même personnes qui ont fait les mêmes faits tëdd benn cinq ans génn ci mbedd mi di bonde loolu am na ko amul xol mën na cee rey nit moo tax man j'appelle vraiment notre mise de la justice ñu génn ñu woo la presse ñu àddu élucider parce que nag yow fii sa panel bii très sincèrement ay nit ñu xarañ ñoo fi nekk di wax mais y a d'autres panel yoo xamante nit ñaa ngi fay nekk di wax di n'importe quoi gis nga tey plainte yi nga xam ne def nañ ko ci koo xamante ni defewul laalewul takkewul ñu jël photom taf ko gis nga des versions yu ñu teg gis nga ñu ñu tuumal kii jàpp nañu ko kii nangam vraiment très sincèrement man j'appelle tey sunu ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu ay haute autorité ki nga xam ne moom mooy le ministre de la justice muy Ousmane Diagne man wax dëgg bind naa bind naa message jox ko cabinetam pour ñu jàllaleel ma ko et dama koy waxaat fii ci panel bi ndax treize mille personnes ñu ngi seetaan mu génn mu def une conférence de presse mu leeral sénégalais sur les fonds de ce dossier. et loolu ñoom mën nañu ko le procureur de la république mën nañu ko dina tax sénégalais seen xel gën a dal et puis ñu dimbali ñu ñu renforcer la sécurité. et képp koo xamante ni def nga ba yoon teg ni def nga sanction yi gën a euh, sévère que muy doon dañ lay jàpp deux ans trois ans grace présidentielle ñëw ñu grâce la nga gén daan nekk ci koñ bi boo ko fi defee mooy indi li nga xam ne moom mooy réglement de compte yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéggalu aussi kàddu yi lépp loo xamante ni wax naa ko fi mu ëpp rek maa ngi jéggalu demee kal dinaa dem tribunal su ko jugee incha allah rabbi boo lu ma dégg sama bopp comme ça ñu koy laaj. incha allah merci beaucoup Kali yàlla yàlla yombal lépp merci vraiment amul benn problème jërëjëf donc donc dafa mel ni xadis waa dafa nekk appel euh, coach boo mënee jël coach coach euh, Kali déjà tey moom sincèrement dama xaw sax tawat euh, ndax en fait dama choqué dama choqué sincèrement dama choqué si Kali dama choqué parce que li tax ma choqué mooy en fait xam nga Kali li gën a garaaw xoolal jigéen mooy yëg ci biir live fii que ça soit ci euh, wàcc léegi léegi que ça soit muy fii jigéen ñoo yëg ci lay yi ñoom ñoo nekk di récapé li nga xamante ne mooy fee yi mais cest à ñoom ngay gisaat que ne ci lépp ñu joxoñ baaraamu tuuma benn jigéen boo xam ne wala ñu am xel wala sikki sàkk ci benn jigéen boo xamante ne tey yàq na valeur jigéen c'est-à-dire bi nga xamante ne bu dee Nabou d'après tey prédef yi nga xamante ne moo am yëpp mooy ci Sénégal dafa am ñetti taxawaay yoo xamante ne Nabou Leye tey yàq na ko c'est-à-dire na ko brise na tey jigéen ci fulla ci fayda ci jom ci ngor ci li nga xamante ne tey mooy jigéen ci defar mais brisé na